tey doy na waar neexaayu bés bu dellu si cumbaay ba nga koy xamee bés bu dellu si moo neex bi le bés wuute nag bu ñuy bégee bés bi dellu si na mbaaw asalaamaaleykum mbokk internet yi GFM tay dañu am mbégte ak kontaante di dalal ci diou You'Deu mom nak euh, rescapé la woon euh, ci bateau le depuis 2002 donc euh, affaire bi def na 12 ans depuis doon euh, nañ ko gis muy reprendre ay way yousundour et tout tay à l'occasion anniversaire bi mu génne ben single boo xamante ne moom moo ko wayal boppam reprendre ko ci di diko euh, di rendre hommage ñi nga xamante ñoo fi jugee ci bato bi suuf noonu yu na nga def. ça va ça yu légui nga revenir juste euh, ci ce ci sa album bu bess bi bobu le bis lan mo waral bobu le bis et que lutax tax way yousundour euh, Ndour c'est la première fois nga génne sa wayu bopp loolu lan la def et.

comme Nafaasi Jola d' accord donc est ce que garder woo ben séquelle tamit ci événement boobu nga xamantene lu metti la woon. waaw séquelles yi nag du jeex comme que ñun la fi yalla bayyi euh ñu dundoon ko féké ko donc yeen askan ñu fo faut ñëw di len ko cédé. donc secret yi euh, du jeex bari na donc daal comme li ma wax rek euh, il faut ñuy moytu yenn yi di daw yenn yi bàyyi lu bare bare bare parce que sénégalais mom

yaa ko def xam nga dañuy defar ay passerelles yoo xam ne point yoo xam ne da ngeen fay jaar mais gars yi dañuy bàyyi point yi di jaar suuf tali kaar fois ak yeneen donc nag il faut ñu defaraat jikko yi donc jikko yi baaxul moom donc day métti ko. Mhm. c'est euh, euh, kii boobu noonu daloon lan la changé ci sa vie li ma changé bii daf ma gën a dellu si sama borom te xam ni yàlla rek kay buur lépp lu yàlla nekk destin la woon euh, yàlla mu dara tëwul bàyyi war na fi. donc euh, ma moytu lu bu bare bare bare bare donc di si jaamu yàlla maanaam. dafa tax gën a sa jaamu yàlla gën a yokku. effectivement gën a yokk parce que tamit euh, nit ki dara waroo dal rek nga ne damay continuer jàmm nga ne yàlla jaamu yàlla bi la sa bàyyi ak sa yaay tuddee nga bokk si seet euh, xeetu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam war a jaamu suñu borom waxtu juróom waroo ko tardé. di defal lu baax di tere yi nga xam suñu borom moom nañu tere voilà la fa léegi tey jour boobu noonu su des su jotee nan ngay passé wu sa journée boobu noonu. waaw journée boobu dina tiis trop si man dina tiis trop dina dina may fàttalikuwaat daf may rappelé waat ay dugg guddi goo xam ne métti woon na trop kenn nekk foon ko suñu borom donc comme li ma waxee li ma wax ci single bi rek loxo ngam na gisul bànqaas bi mu jafandu ba gis na lu làmb mënta nettali loolu yàlla ku mënul lii. donc ce motax mané ma fait de fay may hein? donc comme le di euh, voilà. est-ce que vous continuer le suivre euh, psychologiquement. Euh, non non parce que comme les ñun rescapés hmm. vraiment c'est très dur Avec les femmes de victimes comme nguur gi jël en charge ñu xel ñu ku il faut ma wax ko chewke ay Aydous directeur société vitale man foofu laa ne bu mu fa nekul won dana doy war lol ndax mëno nek ci ben problème bo xamné ne amoo lo japp nga bëgg a sa problème doo ko am lolou day gëna tax nga am stress bu metti metti metti may gëna xalat xalaat yenn yi xam nga donc nak bu fekk da nga am chaque fois lo yóbbu di ci dolli di ci gañ sa sutura donc dina tax lu bari bari di ko faté motax il faut ñu jëleen jappalé

ndax yenn mbokk yi ak yenn am di jàmm yi surtout nga nekk du nekk sénégalais donc mooy loolu waaye am naa lu am naa su loo xam ne parti boo xam ne am na am na am na lu soo xam ne dugal naa ko si te vraiment alhamdulilah ko mhm. léegi tey jii ne tey bu parce que yaa ngi wax ci autorité yi ci sa single bi et tey boo doon wax euh, autorité yi pour mu dimbali ñi nga xamante ne ñooy famille des victimes et tout ça ak rescapé ñu mel ne yéen lan lay doon tey. waaw jàppale ñu ci wàllu koom. les familles victimes am ñoo xamné ne dañ fi bàyyi seen doom ci walu école bi walu santé hein donc ñu rescapé tamit il faut am ñoo xamné ne tamit jàpp ñu si dara ñu jàppale leen xam nga ñu am si lu ñu jàpp xam nga donc nak bu fekkee defoo dara am ci leen lo japp la ngay tabatabal ni day metti ndax li ni bu fekkoon bitim rew la kenn waxatu bu fekkoon bitim rew kenn waxatu donc nak comme ko fi Sénégal la euh, yermane mo fi daw il faut ñu bàyyi xel ñi nga xamné ne bàyyi nañ fi seen parents wala seen parents bàyyi nañ fi seen doom yi

bu ma nekkee ci aar bi du tey 86 laa commencé émité sunu euh, playback bi alhamdulilah euh, lépp lu ma am moo ko may euh, maa ngi si voyage itam partout lépp sama fulla ak sama fayda ak bëgg gi ma ko bëgg gëm gi ma ko gëm moo ma may lii nag c'est la première fois ma def ko donc day continuer maa ngi pare album insha wax ne ni gars yi damay way comme ñëpp voilà mm-hmm. lan mooy sa ay projet waaw sama projet comme li ma wax rek maa ngi pare album di pare album bi c'est la première fois mu single bu bees amna ño ñoo jot nañ way no phrase di jola mané pourquoi pas man ma way ko way nak nga xamante ya ko dund ya gën xam lu ne ci biir surtout surtout man ma ko fekkee maa ko dund en tant que artiste mané nak bon na naa euh, ba 11 ans 12 ans après ma ñëwaat mu donat lo xamné li nga xamné mom la laa mom la gis mu dellu ko dukal askan léegi lan mooy sa dernier mot waaw sama dernier mot comme li ma wax rek nañu état bi jàppale gouvernement jàppale donc pour jàppale ko Sénégal ñu kanam il faut ci kër yi ba mu rek yàlla ñëpp la fi nekkal ku nekk danga boo bàyyi sa waay donc yàlla dina yërëm jàpp internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag ñu deux ñu jël